Uras Info, Ribari Gao. Tewor, Uras Info, l'info à temps réel. Uras Info. Djanga du Yukhout, Tedagou, notre force, le traitement de l'info. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi, haqqa qadri wa miqdari azim. Mboku, yinga nga xamantene lo ñun Mboku, la Xadara nga xam ne muy jaare ci chaîne yi yëpp mm, di fiy jaar ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax euh, ñu ànd ak yéen nag ci seen programme mu gàmmu international bu Medina Baye euh, te nag ñu ngi dalal kenn ci pays yu Mawlana Seexu Islaam Laaj Ibrahima Niass man dama ko wooyee markazul ilm parce que tey jii defar na ay. mar ay markaz yu bëree bari macha allah ci réew mi Sénégal ak ci biti Sénégal euh, lépp nag ci yaru sëriñam Thierno Hassane dem kooku mooy kam oustaz Alioune Ndao euh, muqaddam Mawlana Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass moom lañu fas yéene tey siq ak waxtaan mu fas yéene waxtaan ak nit ñi ci li nga xam ne moom mooy Baye Niass ni gisee woon gàmmu lan moy gam ak njëriñam lépp insha allah rabbi loolu la fas waxtane kon yéen yi nga xamantene ne jakarlo ak mom jëm jooju ngeen gis moy oustad Alioune Badara ndaw moy Ali Ndao di muqaddam wala na Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu dañ koy jox rek mu dug ak yéen ci waxtaan wi dañuy arab yi wax ne takalam tu araf te avant muy wax sam ñu bari xam nañ ko waye ñi ko xamutoon nak su waxe incha allah dinañ xam moy kan assalamu alaykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di ziare di leen ndokkeel di sant yàlla bu baax ci may yu rëy yi nga xam ne may na ko al ummatul muhammadiya te buntab sant mooy buntab dolleeku ñu julli ci yonent yàlla muhammad salaa sallam mi nga xam ne su noppee ma ngay jàngale bu dalee dalam jihaad la noppeem jàngale la sukutuhu taalimun wa sukunuhu jihaadun sallallahu alayhi e, di sant yàlla bu baax ci yàlla dimbale gi ñuy dimbale ñu yëg ne ñu ngi ci weer woo xam ne wax naa ko léegi réveil la ci ñi doon nelaw euh, doomu aadama lu bërim day nelaw waaye ñu ngi koy yee ci yonantu sallallahu alayhi wa mooy réveil bi nga xam ne yàlla moo ko monteel jullit ñi seen xol yi mu leen di yee yeena bakkan yi yeena xel yi yeena xol yi yeena ruux yi salawatullahi wasalaamu aleyhi E, guddi mi ñu nekk nag nga xam ne mooy guddi gàmm boroom xam-xam yi def nañ ci ñaari cël am na ci ñoom ñu ko gisee nañ ko gisee saxal ko mu'taxiduun am na yeneen école yu ute ñun gis-gis ñu am neen nuñ ko gisee waaye alhamdulilah rabbil laal mi nga xamee ne am nañ ay barahinam kitaaban wa sunnatan charan wa tabaan benn bu ne mën nañ cee lay ne féetee juddu yonentu sallallahu alayhi wa am na cosaan ci alquran am na cosaan ci xadis ci waxu yonentu ak ci jëfam dafay baax nag ci xale yi nekk ci ron mag ñi di taataan seeni jàngale di dund seeni doxalin te baax yu mel nii bu xewee ñu di ci waxtaan ak ñoom ci xeet wi limaam suyuti jalaaluddin suyuti mi ngeen xam nga xam ne xaw tuuti mën a la fànn gu ne taalif na ci boo demee ci alfataaw yi da nga ko fekk benn risaala bu am solo muy al almaxsadu fi amalil mawlidi mu ne la ko ay lay yu bare bare bare bare bare yu rafet bokk na ci rek laaya ji ñuy jàng kullan naqussu alayka min ambaa'i rusul maanu nu thabbitu bi fuaadaka euh, mboolem yonent yi kullan la wax ma nga xam ne yonent yëpp école lañ wa kullan naqsu xudoo baadohum bi muy wax ngëneel dafa am ay pàcc-pàcc la tilka faddal naa baadum ala baadin waaye muy wax pour waxtaanee rek nit ñi mën a jëriñu wa kullan la wax koo ci laa école la te li gën a doy waar mooy ki koy def ak kiñ koy defal nettali bi yàlla moo koy defal boppam naqussu kon jëfe yàlla la waxut sax aqussu te yàlla di kenn mu indi noonul jamee di wane importance waxtaanee yonent yi kan la koy defal kaaf gi mu ngi dellu ci yonentu alayka bu gàmmoo ba pare lan mooy jëriñoo gàmm gi mooy fu aadaka éléments yi mu tudd ci aaya bi rek jaroon na lal gàmm wa kullan bawut kenn na xussu yàllay xisal boppam alayka yonent la koy defal waxut maa nu sabit bi aqlaka wala nafsaka daf ne ko fuaadaka waxut ji dafa bëri ay ay durus yu ci nekk euh, fuaat mooy buñ paree ci moom xalbu mooy buñ pareeku ci waaj xam day jëlal ba tey nii ëllëg naa xalatu amalan saalihan wa axara sayian mooy xalbu yataqallab waaye fuwaat mooy dem ci keppaar ak yàlla maa kasabal fuaad waxut maa kasabal xalbu waaw fuaat miñ pare ci moom yonuntu miñ pare ci moom yàlla mi nga xam ne mooy aynul kamaali méngoo waxtaanee yonantu ya di ko defal yonantu bi pour baxal fu aadam bi ho sa qalbu bi kon yomi yore qalbu ana kon luñu wara def ak yow wa kullan naqus alayka min anba'i rusul ma nu sabbi maa bi fuadak jàngat yang ngi may déglu waxul min akhbari rusul mu indi batu naba'u naba moy lo xamne bu ne jël ñëpp ci wax amma yatasaaluun xul an il xabari il azim an il naba ani al alimu kon min ambaai rusuli maa nu sabbitu bi fuwaadaka loolu ay njàngat yu bëri ci mbokk yi addalu dalilin ci mashruiyatu taazim yilaadi rasul aay yi doy na ci ñu nettale limaam suyuti man am na ñu ne ko waaw lu tax nag yonantu mu juddu ngeen di ko defal feet di ci kontaan di ci jàng ay siyaram pourquoi bi mu dee defu leen ko te pourtant bis bi mu faatoo mooy bis bi mu juddoo or na bisab altine ñu ne ko yaa rasulullah altine or lu ko waral mu ne daaka yawmun wulidtu fii bis boobu ci la judd yonente bi muy rañaan ànd ak yonte yàlla muhammad ba ca baytu laxm def na ko fii mooy barab bi isa juddoo kon importance su seen barab yi ñu juddoo ak seen temps yi ñu juddoo lislaam da ko bàyyi xel yoon di wax na ci xadis bu wér ne xayru yawmin talaat fi chamsu yawmul jumaa bis bi gën jant bi tiim ko nit ñi mooy bisu ajuma ñu ko yaa rasul yan yan raison mu ne fii wulida aadama boobu laa ci jël ko mahalu shahid ci la aadama judd kon màggal na temps mooy yawmul jumaati wan nañ ko barab mooy baytu laxmin kon màggal na barab bi ab yonant ba mu juddoo ak temps bu ab yonant juddoo jamono nag zamaan ak makkaan moo ko occupé ku mën a génn zamaan ak makkaan kaay oo oo ñu ñëw ziyaare si la nit mënta génn zamaan mënta génn makkaan ku dut borom zamaan ak makkaan rek la makkaan ak zamaan tënkut mooy yàlla ku ko mooy yaa ngi zamaan ak goroon makkaan kon mawlit l'imam Suyuti neen waa bisab de l'islam moo ñu permettre ñuy kontaan ci bisab mbégte di delloo njukkal yàlla ci muñ ak sant ci bisab nattu mu ne leen xale bu juddoo bis bi juddoo bu ñëwee yow mu saabi am sunna la ñu rendil ko gàtt bis bi mu dee du sunna ñu ciy rendi kon bisu juddu du bisu mbégte kon lislaam may nañu ñuy bég ci bisi ndëpp tey su ko defee nag mbokk yi yeb nak tamhil la rek ci gam Abdullah ibn Abbas mi qana moy hibrul ummati bi muy firi qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidhalika falyafrahu xam yal ay nañu bekk ci aduna la tafrah ان الله لا يحب alfarixin قارون sa cëpp-cëpp ji nayam سمبكتي من أيام ريال بقول ني بك يو لي ني إن الله لا يبقى الفرحين ميو نيو قل ان الله وبرحمة فبذلك فليفرحوا نن بك بول ان الله بك لن آي لم بك ما لال فوب لن آي ان الله دن لكو آي بلا لأيال لن يولا بسم الله فضل الله ما يلاك أدونا فخم غنيل يالا لغن ينتي على محمد أموت ngëneel yëpp bànqaas lañ yoontu mooy cosaan li e ban rahmatu moo gën a yaatu rahmaniyatuhu salawatullahi wa salaamu alayhi ndax moom rahmatum dafa ñëw lil aalamiina yàlla mooy rabbil aalamiina moom mooy rahmatan lil aalamiina ku yàlla moom ku nekk yërmande yontu agsi na ci yow te yàlla mu ne fadlullahi ak rahmatullahi nañ cee bég فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كون بوكي اي دروس لا يو خامني من نكو جومو تي غام يونتي محمد صلى الله عليه وسلم نيو نا مدينه منار فيك يو دي اور من لو خيو من بيس بي الله يالا ماين فيكتوار يونتي الله موسى تي كو فرعون مو اور كو سنت صحابه كو تي ليكون تي لي دسي بيتي اور لين كو mooy mooy koor gi nga xam ne mën a dab nit mu téye li des ci bëccëg gi fa ba nga ko sanal fekk na ñi ndekki nañ ñii añ nañ ñii def nañ seen mu ne ku ku lekkoon tamit mottali li des ci bëccëg gi ah bisab victoire ci yonti yàlla Moussa fekk yoon yi da ko or mu or loo ko saaba yi na déwoon su ma dundee ba fekkee ko dinaa ci yokkaat la asu mën na taasian wala anchira xanaa day mel ni kon gàmmu gàmmuwaat mën na taasia wala achira tax màggal yonent bis bu ñëw nga màggalaat ko dëgg-dëgg war na waxtu wu nekk jamono bu nekk kon mbokk yi manqué rek fàttaliku ju baax ñi loo ji def nga xeeb ko kon loolu lii mas mas lii wane na ne gàmmu am na cosaan lu dëgër dëgër dëgër buñ ci paree ci loolu doomu aadama dafa yomba fàtte ñaata wëzkur fil kitaabi fulaan moo ñëw ci alquran ñi ay góor lañ day yonent Idris ak ba jeex am na jigéen fil kitab Maryam waliyu la woon kon yàlla wax na nañ fàttaliku yonent yi nañ fàttaliku waliyu yi yu góor yi inna um fidiyatun amanu bi rabbihim ay xale yu góor lañu woon nekk ay waliyu yàlla alquran dafa leen saar woo xam sax dafa am relation ak bisu àjjuma ñu bëgg ajjuma bu ne jullit di jàng suratul kaafi lu bëriñ ci ay ngëneel kon kay wax na nañ fàttaliku yonent yi nañ fàttaliku wàllu yi góor góor ñi ak jigéen ñi waxal li gën a yaatu wa dhakkir um bi ay ban bés la yàlla moomut ban bés la yàlla moomut yàlla mi mooñ zamaan mooñ makaan ban bés la moomut alxuraan wa dhakkir um bi ayyaamillaahi na nga fàttali nañu bése yàlla yi bés yàlla yi alquran dafay wax di firi bi mu ne inna fi dalika la ayatin li kulli sabaarin mooy bisu nattu yi shakuur mooy bisu xéewali kon ayamul mihani wal minahi moo ñu wër jalaal ak jamaa la wër ban xéewal moo gën a rëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam mooy sayyidul wujudi wa madadul wujudi wa ruuxul wujudi wa wujudul wujudi salawaatullahi wa salaamu alayhi kon mbokk yi gàmmu moomu nañu nekk yonantu sallallahu alayhi wa sallam dañ ko def ci kanamam boo gisee lislaam nekk diine xam-xam yonantu dafay càmbar dara bàyyi ku ñëw yaatal ker bi mu waxtaanee ci yonantu yàlla Muusa or ci victoire am ubbi na bunt waxtaanee ku baax sant ci yàlla ubbi na bunt boobu ñaataa ko woy Hassan ibnu Saabit ab dégg nga de euh, Abbas ibnu Abdul Muttalib borom min qabla tibta fi zilaali ñaataa ko woy mu ñaanal leen yàlla ñaataa ko woy mu yëkkati mbubu jox leen borom baanat suaadu Kaab ibnu Zuhayr ibnu Abi Sulma borom baanar soaadu fa qalbil yowma matbuulun mutayyamun ithraha lam yufda makbuulu keroog ma koy ba àgg dafa yëkkati mel na bu jox ko ko mu moom saaba yi di ko di ko xemem ba fa mujj xam nañ ko kon way nañ ko mu joxe mbalaan way nañ ko mu ñaan yàlla way nañ ko sax mu wàcce jibril takallam uhju um warul qudsi maaka wax na ko xasaan xas leen dañ ma xas xas leen soo leen xasee jibril dina ànd ak yow kon wàcce na jibril sax ci làmmiñ ab saxaaba ak ci ak ci xolom yëpp wane ne tagg yonent dafa am cosaan lu dëgër ci alquran ak ci xadis mbokk yi ñu ngi ci weeru gàmmu weeru màgg ñu koy defee nag ci keppaar ku ko xam xam nga laylatul mawlid guddi yu baax yépp xasanatun al layaali al faadila xasanaatun min xasanaati laylatil mawlid mboolem guddi gu baax gu am barke bànqaas la ci guddi gàmm laylatul qadr téere bi ci wàcce ko fooral mais ki ta ki moom téere bi ak ki ko leeral benn bind ko def ne qad jaakum min allaahi nuurun wa kitaabun mu ne nuur la njëkk a tudd mooy yonantu kon juddu moo moo ëpp doole guddi gi leelu bi alquran juddu mooy leelu xadar kon nuur ak kitaab la dajale njëkk a tudd nuur nuur mooy yonantu kitaab mooy alquran kon fi nuuru feeñee ak fi kitaab bi feeñee kon fi nuuru feeñee mooy aslu fi kitaab bi feeñee mooy faraw kon laylatul qadri xasanatun min xasanaati laylatil mawlidi lawlaa milaaduhu maa nazala kitaabuhu salawaatullahi wa salaamu alayhi milaaduhu maa nazala kitaabuhu kon guddi la goo xam ne mbokk yi bu am cosaan a ngi noonu gu barkeel ñu koy def nag ci naka la lañuy naka la ñuy gàmmu tanzimu milaadi nabi dañ ci màggal yonent yow na fexeel bu ca bu ca daaneel yonent nuy taazim ak lan mooy isxaat qadrihi wa xaqi salawatullahi wasalaamu alayhi Cheikh Ibrahima radiallahu anhu daf bëgg yonantu dundam yëpp li ko wuldu Seyd wax na ko yow su dund nga day fiir alquran ak xadis bàyyi dundam nga day fiir alquran ak xadis ku neex ànd ak la ndax ku naq day jam la نحن نوصان إلهي نفسي الدهر لا أرى أميل إلى ما ليس في شرع جائزا باي من يلا ما سيانة نفسي وقد عصمة دي أمنا تجين بموي جانجلي لما يجي ري ري ري دكو يتكي قم قم عسمة يرندو نيوكو موم حفظ أك لولي عليه موم وصان إلهي وقد وعصم إلهي العصمة للأنبياء والصون والحفظ للأولياء باي من يالا مي موم بكاني سبحان الذي بيدي ملكوت كل شيء موم تيل سما بكان يارال مخو با دوما ديف دوما دوما ترقيس لولو دو عصمتو كرامه كو يالا ما يالا بوغن يونت لول صلى الله عليه وسلم دان فوك لو وير وي با ديكو مومال بوبام اني ان لابراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله لاح هلاله doon na weer wi bàyyi la ko moom weer wi weeru yàlla la waaye idaafatu tashrif ak idaafatu tawqir ak taqdir idaafatu tashrif ñi jàng daara ci waxi yaaram xam ne daaf dafa bëri ay façon baytullaahi doo fekk yàlla mu toog naaqatullaahi daawu ko war waaye idaafatu tashrifin la idaafatu taqdir mooy la ilaalu bàyyi dafa mel ni weer yu xajalu ci kenn ndax mbëggeelam da nga di ci yonent sallallahu alayhi wa mu doon nag nit ku doon fuglu gàmmu gàmmu Cheikh Ibrahim gàmmu ci Medina wax naa la léegi mën na la gàmmu réveil la yonent ci la yàlla di yee xol yi comme neex nag bu koo xam ne du biddante yow ngay taal sa réveil mais yow mi ngi ne yow aajo nga ko yee mën nga dem gàmmu ji ñun nag dañuy biddanti moo tax ñu aajoo gàmmu mm, ku yàlla may doole nga am xuwa ba doo biddanti yow jarul ngay soxla refee kon ñun soxla nañ ko ndax dañuy biddanti soxla danañu soxla jikko yonantu maada tafqiduun qaalu nafqidu suwaa al maliki ñun xaal boobu la ñuy dund lan ngeen di wër ñun day nattukaayu buur bi la ñuy wër ñun nag jikko yonantu la ñuy wër jël gàmm def ko muy weeru mu nekk minbaru daawa li gën a yéeme bàyyi ci gàmmu islaam imaan ihsan benn bu ne oto la da ko doon feesal ak ay client su gàmmoo pare nga kuy tuub oto bu lislaam taxaw mu yàpp ñu tuddoon yeneen tur mu jox leen tur yoon ak ay saxaabaam yebal lislaam ba otom fees mu ne ku jël tarixa bi moo daal di yebal iman su duggee ci néeg ba yebal ihsan sóobu ko dañoo sóobu joxe ijaasa yi kon bàyyi gàmmam ñetti oto yi la doon duy islaam iman ihsan radiyallahu anhu matta ana bi barakaat yi gàmmu Cheikh Ibrahima ngoog e, weer yëpp wax naa léegi ma ne leen nodd ak liqam bokkuñ ci julli waaye bu julli jotee rek yoo koy commencé jàkke allah fa toll di ko dégg boo ñëwoon fekkee noonu ko dem ñibbi da ngay am bàkkaar de ndax noo dëgg du moom lañ moom lañ indi ci jàkk ji de daf ñuy oomee yëkkatiwuñu réveil la daf ñuy yee rek liqaam tamit réveil bu gën a jege la moo tax moo gën a neewe xaraf mais julli mooy maqaama bi bàyyi bu gàmmu tere teroo commencé na min qabliha mag ñi dañoo baax mënoon nañoo kenn ku ne taalif nga loo mën a gàmmoo bàyyi laami yaam bi bawu dara bawu dara Maam Alaaji Maalik mii mi yam bi baxut dara demet ba mag ñi jeex waaye kenn dañ fa ñukk di gàmmoo Bordeaux ko Hamziya te lañ bind yaatu na barkeel na am na leer bu gàmmu teroo mu commencé min qabliha taaram yokku mu ñem mu rafet moomu yokk tabeem gu yaatu googu yokk tabe ci loxo tabe ci làmmin xol baa ngi joxe ñaan yaa ngi nangu lépp lépp dafay nekk dafay nekk alfaati li ma axulix gàmmu ci Medina day nekk alfatih li ma ughliqa radiyallahu anhu noonu la ko doon noonu la ko doon dundee kon soo defee nag mbokk yi euh, day baax nag euh, ñu ñu am ñu jël dara ci yonant li ma ciy njëkk a jukki rek mooy benn biñ ko génnee màkk mu génnee néew doole jaar ci ay xur سيدنا بكر دجس سوكا فني مجارفة دم بتين جنوك لا تحزن إن الله معنا مينيوات عندك دولة فاتو مكة مكة أبيكو سنادي القريش نيو أفتي كدمم من لن نوين دي أكتر مولا جفلن تيجين جنوك كبار دوم يمبك مباخ متفت لا ينتهي اليسوع لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلاق لو درسوا لهم heure boo nekkee ci béréb ñu tong tonga la ndax néew doole nga làqatu ba sotti ba ñuy ànd ak néew néew doole fàttalikul dund yonant dañ maa néewaloon doole bi may départ jot naa ci doole doole ji damay fayeeku loolu nekkul madrasatul Moustapha nekkul madrasatu wa innaka la ala xuliqin azimin muñ na bañ ko tooñee jéggale na bam jekkoo may wax toujours na yonent dafa neex a roy pourtant mënoon naa xëy def xar baax yàlla mu xëy wàcc asamaan si ñu ne kii mooy aaxirul bi yi ñu ne ndaw kéemtaan mu nekk taan bu ñuy jàng ba àdduna tukki mais dafa am ndey ak baay ñoom ba ko juróom-ñeenti weer mi ëmb boo xam ne amul coono darsu la ku ëmb yonantu doo am coono heure bu ab jullit sonnee ëmb dafa ëmb yonantu boole cekkeen dafa seex ëmb yonantu ëmbale sa maam loo mel ni coono heure boo fi ngéntee ëmb yonent ëmb sa mam sa mam ni la don doxale yonent ni la doon jàngalee ngénte la métti foog nga am bor lépp loy def ëmb yonent boole ci kenen mu xeex fi na ñëwal la waaye ku ëmb yonent kessé bay mëna do am coono dama hamlul hadi shuuran haqawa tis'atan lam tuhsis lo bi thiqalin bay mëna ne ëmb ba ba kon yonent ñu lañ soxla ci mom loo jàng jàng jàng diine ji te nekkoo haadi nekkoo muhtadi juboo royo ku jub daanaka yow dafa mel ni alquran yu ñu enregistré ci cassette weñ wala ñu bind ko ci allo allo dafa dëgër mais mën na ëmb ay texte weñ gi dëgër na mais mën naa mën naa lok ay tex waaye fexe la bul nekk weñ guñ enregistré xam-xam bay bëreel ba yëf yi nekk jikko yuy feeñ ci yow bàyyi ma ne juróom-ñeenti weer lañ ko ëmb yaayam yëgul lenn lu diis damay wax toujours heure boo ngéntee mu metti rax nga ci aadam heure bu dëj bi amee coono rax nañ ci aadam takk gi bu méttee rax nañ ci aadam cër bu méttee rax nañ ci aadam kon ku ëmb yónante kese doo yëg coono bu seexee nag coono heure bu coono amee rek dafa seex muy école bu rëy boo xam ne fa may tëjee te di ko bàyyiloo xel xale yi toujours wax na ko jotaay yu bëri ma ne yonent dundam wax na ci alxuraan nett na ci laminam ne wa ma ana minal mutakallifiina lu ma def rek day fekk dama ko man du yóotu du fiqu du xëccu day dox ndànk nit ñi di doxee lekk nit ñi di lekkee bu nelaw jotee mu nelaw ko nit ñi di nelawee su amee soxla dem lebi su amee fay bu amul joxe rendez-vous bu amee fay mu day xeex di gagné xeex ñu di ko gagné day am problème comme ñëpp mais teewul ne utiliser wul maqaama bi ci biir wa ma ana min al mutakallifiina xoolal bi mu juddoo mu njëkk namp ci suuy batu nekk mawlaatu abi lahabin borom xam-xam yi ñu nettali foofu loo xam ne war nañ ko bàyyi xel abu abu laab abbas da koo gént waaye bi nga dee nu yàlla jëfante mun ah lënd daal laa yëg na dana am pause ci sama bëggoon mi lënd ba lëndi munu ko lëndi mun waaw munu ko li ma ko may daal mooy sooy batu sama jaam ba ñëwoon na ma sa doomi rakk ji sa soxna si rakk ji am na doom muy muy góor ma bëgg ba goreel ko ndekki mbég ma mbég ma ci bëgg ci la ma yàlla mayee lii ñaari darsoo ngi foofu gént ab yéefar abbas bi muy gént la boobu nekkul jullit ñu ne gént la ab yéefar ak gént ko nekkul ci diine duñ ci dépendre ah kay loolu njuumte la yéefar la bu bëggee ci lu baax comme tuubut lu baax yi yéefar wa naa ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu man mansuura comme yéefar la daanaka jëfam mu ngi rëdd ci ndox yam mais de du noonu ba tey gént yéefar da koy gént l'islam appuyé soo weddee dama ci xisab yonti yàlla yuusuf dama géntoon gis nangam ak nangam mu fi mu firi gént nga yàlla yàlla wane wane gént ak ni mu am importance ak mu nekk xar baax ci yonti yàlla yuusuf kon ndeke gént ak yéefar boo laalee dëgg mën nañ ko favoriser boo demee surtout yuusuf moo fees del yéefar bu def lu baax ndax dañ nga koy fay ibaadaat lay def yéefar bu bu doon julli ba suba du fayee ko su ooree ba suba du fayee ko mais bu jëlee jikko ju baax wala jëflante bu baax def ko loola mën nay feeñ ëllëg ci kontam yàlla mën na ko ci oyofale leen mbugalam abu taalibin défendre gi mu défendre yonantu moo tax bu doon safara géej la moom day xuus mi ngi ci tefes gi rek mooy mooy tooy tànk yi te tuubut mooy mooy li wax mooy waxi li ëpp ci borom xam-xam yi te mbugalam oyof na ay rakka mayu ko ko koor mayu ko ko kaamil mun wàcce mayu ko ko défendre yonent moo ko ko may kon yéefar bu defee lu baax ci ay jëflante mën na ci am aw yoolu yàlla ak yërmandeem ndax yàlla ku yaatu yërmande la hakim ibnu xisaam saa biñ xam yonent daf ne ko woon aslamta ala ma aslafta min xayrin hakim li la may lislaam sa jéego yu baax yi nga doon def ci kéefar moom la yàlla boole fayaloo ko nga nekk ab jullit kon maa ngi ci rek euh, importance su yun salaahu salaam juddoomu barkeel boobu ak gént gi abbas géntoon gis abu lahabin mun ko altan altan la impose kon neex na roy may tëjee nag di wax ne toujours ku roy dundam bi ci zahir rek mën a sottal lu bari ci àdduna bi mu juddoo bàyyi mu ne te loolu mi ngi ci wala ma séeré wax nañ ko mbaam la war wax na xale yi toujours mu dem ba ci kan war na bi fas yonent war na war na gileem amoon na mber mberkel lépp loom ñeen tànk amoon na ko waaye nga départ bi ni mu neex roy boo tollee ci mbaam waral mbaam boo tollee ci fas waral fas ba keroog nga alburaax beer nga àgg fa alburaax du mën a dem doole yàlla jee la yóbbu yooyu yëpp nag nit war na ci mën a jàng nu mu tabaxee dundam kon mbokk yi gàmmu daal nekkul lu dut ñu tilimoon war a dem sangu ci mu des nag la cay xew am ñenn ñu ko cay def ndax loola mën na yàq cosaan lu baax waa ji julli ba ca digg ba sàcc ci poosum kim dendeek dara julli na sàcc na julli ma nga fële sàcc mi fa benn bu ne ñaari action yu bokkul affaire lañ kon sàcc mi du yàq julli gi julli yóorndu gis safaan ci wanag nit ku sangu nga xool aw yaramam bët baa nga yóorndoo mais yaa ngay julli bët ba am na daan mais yàqu dara ci julli gi al aslul mahmud laa yufsiduhu al farul qabih الفرع الأصل المحمود لا يفسده الفرع المزموم الفرع المزموم لكن نك لين تودي التوابل سي واخ يارام توابل ما يو ني داف سي ليك بور مصف يو ني بولي دي سي كومبوزي يو بري بور مصف سفال موي التوابل سو توغي سو لكي سي ياب موي توغو كو باخ يول سي توابل داف سي مو اندل فيبر kon léegi yàppoo bu la ko tawaabili yi yàqal na nga éliminer tawaabili yi jéem a jëfandikoo li nga xam ne mooy yàpp yi xam ne amul luy lor fu ñaar ni daje rek seeni jubluwaay day uute comme yonent salaa salaam mu ànd ab équipe ñuy gàddaay jubluwaay yi uute fa man kaana hijratu ilallaahi wa rasuli ñu ne ko am mu ne fa hijratu ilallaahi wa rasuli ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه gàmmu ko di àngoog kii def na bërët jógee këram ilallaahi wa rasulihi kii ne bërët jógee këram li duniyan yusiba aw imraatin yankihuha su boobaa fa ila ma haajara ilay du yàqal fa hijratu ilallaahi wa rasulihi mënu ko yàq may dénk ñëpp nag ne tanzimu milaadi rasuli waaye bu fa wàcc yow dara jaay yonant ci safaani ay ndigalam su waaye yow taazimoo mais yow da ngaa isqaat te yaay ci rootee mais qadru moom kenn mënu koo rootaal kon mbokk yi gàmmangoog di événement boo xam ne réveil la pour ñi xam ne dañuy ragale biddanti ni ko ni jëfandikoo course pour ragal lim bi ëpp wala lim bi loolu ay matériel lu ñuy jëfandikoo la gàmmu du xaaya wasiila la gàmmu du xaaya wasiila la dañ cee jaar pour am nañu régleel waa ji ci xolam ci xelam ci mujtama bi muy dund kon gàmmu wasiilatun laa xaayatun kon nag mbokk yi gàmmu bis bàngoog ñu ñëpp di wax nañu ñëpp nañ fagaruwaat bàyyi wax naa la ñetti oto yi la doon duy islaam iman ihsan bëreel ba soo ñibbee na xam ne kii lislaamam yokku na imaanam ihsaanam ren nak mawdo bi jël ci gamu gi moy ya ayyuha alladina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin waxul ragal leen yàlla wa kunu sadiqina dafa jafe de wa kunu ma sadiqina ren lol moy teemu gam nga ragalen leen te ngeen andak sadiquna baye ci firé mu rafet ak dëggam alquran mu waxoon wa kunu ma sadiqina kon fo jël sidiq dafa jafe waxoon wa kunu ma sadiqina ay bal nga gis siddiq waaye mënoo ko nu ma saadiqin comme première étape bi rek nekk saadi àndal moom ba keroog muy nekk si déex ren gàmmu gi mooy at taqwa maa musaaxabatu as saadiqin lu ren mooy gàmmu gi kon mbokk yi lii mooy darsu bi ñu seqoon ak suñ soppe bi ah lu ci rafet niñ ko sant yàlla ci mbaaxam gi la lu ci am manki manki ñun duñ ko daw duñ ko jombale suñu bopp ndax ay feeñ waaye manqué lañ ak ñakk a xam ak gàtt am lef loolu dañ koy tuubee suñu borom waaye nekk duñ jubluwaay liñ jublu mooy li ma waxoon rek lu jëriñ mbokki taalibe yi ñuy gërëm ñëpp di beral nuyoo ak ziyaare xalifatu saahibil fayda di qaadimul ummati suñu imam bi nga xam ne mooy imam Seydi Cheikh Ahmad الناطق الرسمي باسم الحضره شيخ محمد الماحي سيد علي سيسي دي نوي نا وكيل داعدين ني خامني كادوم شفاء ولا جمم شفاء ولا شيخ سيدي محمد الامين ابراهيم ديكو نيانال يالا يوك ويرم غاموغي بيب تار بو نتي دون ام يالنا يالا يوك تار با يوك عدد بي يوك مدد بي بجاي مولانا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته